bisub sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg fukki fan ak juróom ñett safar mooy bés bu mag waral ñëppi safar anche billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyiduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi tasliman mbokk yi nuy seetaan fu mën a ne ci réew mi ak bitim réew am nañu mbégte bu baax ci bisu tedd bii nga xam ni mooy bisu jullit yëpp waaye nag di bisu njabootu cheikhul xaddiim nu ciy siyaare bu baax nag cheikh Muntaqa Mbakke xalif général kullu murit tey ñaan yàlla mu yàggal fi jëmmam ji lool Mbakke te wéral ko ngir naalam yu am solo yi nga xam ne naal na ko yoonu murit mu yeggale ko waaye li mu naal ci lislaam naal ko ci diine ji lépp mu yeggale ko yeggale ko ak sagoom noone itamit tamit ñu koy joxe wàccuwaay mu joxal nu ko mbooleem ko càllawloo ci cheikhul xadim waaye bokk taalibe yi xam ngeen ne bu ñu duggee ci weeru tedd wii di weeru safar eh, tey di ci bu njëkk ñu koy wax premier safar xel yëpp daanu maase jëm ci dëkk bu tedd bii di njaareem sabab li mooy sëfinatul amaan goney njaareem kuréel googu nga xam ni ñoo ŋànk liggéeyu première safar bi dox boobu nga xam ne ñoom la ñuy bokk dox ak waa njaarim gépp sant Cheikhouna Cheikh Ahmed Bamba Khadimal Moustapha ci li mu ñu defal njaarim it di dëkk bu bari taarixu màggal ndax xam ngeen ne ku tedd ki Cheikhul Khadim fii la njëkk a màggale këram gaa ngi nii ci sunu gannaaw jumaam jaa ngi nii sunu gannaaw jàkkaam jaa ngi nii sunu gannaaw mboolem fu mu daa jaamoo yàlla mi ngi nit sunu gannaaw mboolem fu ko ab Cheikh Moussa fekk mbaab taalibe mi ngi nit sunu gannaaw kon njaareem dëkk bu mbenn bu bu man di Serigne Touba la foofu nag eh, yaakaar naa ne première safar saa yu ñu ci nekkee sunu xel ak sunu xol day maase dem fa loolu moo sabab nag seen suit internet bu mag bii nga xam ne mooy taw Tawfekh Production ni mu ko baaxoo defee ci lislaam baaxoo koo defee ci diine. ba koo defee ci liggéeyub Cheikhul Khadim noonee la ko àndee ak tey waa kuréel Safinatul Aman gépp euh, macha allah ci premier safar njaareem xam naa damay def rek euh, ouverture ubbil leen bàyyi leen ak Cheikh Mamadul Mourtada mu wan leen liggéey bi fi am macha allah fi may wax ak yéen kuréel yaa ngi ñëw di bàyyi koo ci ay gox yenn yu nekk waa kër Cheikh Ibrahima Fall ña ngay waaj di ñu xaar. waa kër Baye Laay ñi ngi waaj di ñu xaar ci yoon mi waaye waa kër gu mag waa kër sëñ Mbay Sarr fenn fu nekk ab kuréel génn na fa ñëw fii ci péncum Cheikhul Khadim mi ñoo ngi waaj nag macha allahu nag fa seenee départ liggéeyal Serigne Touba ci jërëjëfe Cheikhul Khadim liggéeyal ko ci xaside yi liggéey ko ci loolu ngeen di dégg muy kalimatul xaq di baatub la ilaha illallah ngeen ànd ci ak Tawfekh Production ba ci kanam tuuti seen mbokkum taalibi Mourtala Gueye géwélu Khadim Rasoul maa ngi leen di jox dig daje ba ci kanam tuuti rek incha allah bisub sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegsi na fukki fan ak juróom ñett ci safar mooy bis bu mag boobee waral ñéppi safar